ginnaaw bi mu annoncé ni du bokk ci élection présidentielle 2024 kii di président Macky Sall dafa tànn kii di Amadou Ba premier ministre pour mu utu ko nekk candidat coalition Benno Bokk Yaakaar waaye choix boobu noonu dafa indi kër gi tas ndax ñu bëri génn nañ annoncé seen candidature mbokk internet yi dal leen jàmm seen plateau Levi TV tey ñuy am mbégte contentement dalal kii di Marème Mbaye muy ex militante euh, Benno Bokk Yaakaar soxna Marème ñu lay dalal si Lévi TV. Euh, jërëjëf Sadio maa ñi lay fay bu baax di leen fay yéen ñëpp nag di kontaan ci dalal bi nga xamante ni dalal nga ñu ko tey ci sa émission la la grande question. alors pour ñu ko xamul nag soxna Marème Mbaye journaliste la de formation. yàgg naa fréquenter les rédactions am na plus de vingt ans d' expérience ci journalisme waaye tey jii daal mel ni loolu da koo jël teg ca gannaawam topp ci politique bi. alors soxna Marème mun nga ñëw tuuti si sa parcours pour ñi lay suivre di la gis première fois ci plateau Lévi TV. saa Sadio. je pense que je vais résumer parce que c'est pas facile de. ma def sama sama sama. sama cursus expliqué ko fii yëpp comme ni nga ko waxee euh, mine de rien j'ai vingt trois ans d'expérience dans la communication waaw loolu <laughs> moom am na <laughs> donc donc voilà euh, soxna Mariama Mbaye laa tudd donc je suis journaliste comme ni nga koy waxee euh, tey nag moom. Mhm. xam naa damay gën a wax ci mbirum politique bi. Mhm. parce que euh, comme tu le sais. Mhm. journaliste journaliste c'est mon c'est mon c'est mon sama formation la métier donc ça ça fait <laughs> partie de moi. Euh, politique bi quand même j'y suis par accident. par patriotisme. comme on dit par fibre patriotique. Euh, parce que dama ci dugg au moment où. mon frère et très cher ami le président Macky Sall. am gundu xataal yu ko doon def. ma dem ba sama communication mayatuma li ma ko bëgg jàppale yëpp ma jàppale ko parce que dañ ma doon contenir à tout moment mhm. di ma yemale à tout moment di ma limiter à tout moment mhm. je me suis pas bàyyi rédaction yi pour loolu mais je me suis beaucoup orientée à chaque fois que j'ai levé mhm. ci politique bi pour mën a joxe ma participation à l'édifice am na solo euh, jël say responsabilité euh, surtout euh, far Euh, alors soxna Marème euh, niñ euh, introduire la ñuy ñëw directement question bi le président Macky Sall ginnaaw ba mu ne dootul nekk candidat élection présidentielle 2024 bi ni tànn Amadou Ba gis nañ ñu bëri génn bokk na si yéen ah, ngeen jógee coalition Benno Bokk Yaakaar da ngeen frustré lu <laughs> xew frustration sax je hmm. peux dire que génnewuñu hmm. mais dafa am lu am xam nga nit ki bu la woowee ci nañ ànd ci lii mhm. nga ñëw wuyu ko ci loolu mhm. di ko topp ba gis ne fi mu la doon yóbbu mhm. jéggi na yoon wa bu la neexee nag nga jugal ci yoon wi nga yaakaaroon ne foofu ngeen di jaar l'essentiel est bu ku nekk demee que ce soit ce Sénégal si kii gañ ñun loolu moo ñu intéressé pour qui <laughs> me connaît boog man personnellement eh, c'est que man euh, euh, je suis pas dans les euh, di raay gannaaw nit di wax nit moo baax et d'ailleurs à chaque fois on me reproche que tàng ba ma ëpp tàng ma mhm. damay bëgg a doxal njub ci sama bopp ba nga mhm. xam ne ku may man di seqal mhm. bu ëllëgee mën naa si gi xool la moi je suis dans man je pense que ni euh, buñ xoolee actualité xool président nu muy doxalee d'ailleurs démb xawma barki démb ñoo ngi koy gis mu photo ak benn soxna su nekk du Dubaï doon saaga ak yi ni mel loolu est-ce que du légitimer d'ailleurs seen choix bi ngeen def ni est que yéen également seen ànd ak président Macky rëccu leen que est-ce que gis ngeen ci seen bopp parce que ku la xam-xam ne nii militante première heure yi nga. waaw bu ñuy wax dëgg rek. Mhm. tey jii bu ñu doon compter les gens qui ki qui ont formé l'âme de ce parti. Mhm. suñ ma ci génnee rek war war naa mën a am. Mhm. et loolu c'est depuis 2012. je pense que man personnellement. ak samay morom yu mel ni man que je connais. yu nekk biir Fatick fa nga xamante ne foofu la source bi jóge mhm. dans la famille dans la maison familiale mhm. man ak sama moroom yooyu nga xam ne on a tout laissé parce que nag je vais te dire j'avais beaucoup de choix mhm. ci sama côté profession ci yeneen ak yeneen mais lépp laa teg tànk uniquement pour jàppale Macky Sall pour xeexal Fatick parce que après tout ni ma ko waxee sànq c'est un frère de Fatick c'est un oncle de Fatick dañu jàppoon ñun du ñu ciy dugg que bu Macky taxawee rek Fatick mooy taxaw Fatick taxawee yeneen dëkk yi taxaw Sénégal taxaw na malheureusement pour Fatick malheureusement et pour nous li ñu yaakaaroon amul. Mm. parce que xam nga boo demee. ba tey déception la quoi total. Mm. moi je peux le dire de manière personnelle. Mm-hmm. li may wax nii. Mm-hmm. intégré wu ma ci kenn parce que mënu ma waxal kenn ci côté boobu. Mm-hmm. comme on dit la politique est un choix personnel individuel. à responsabilité. unique. donc duma ci boole kenn mais man personnellement. responsabilité unique boobu laa bëgg nga commenter ma photo Ayush Kiti ak président Macky <laughs> Sall Dubaï. loolu xam nga <laughs> ah, parce que daan la gis si réseaux sociaux yu mel noonu bu xewoon ba nga nekkee ci coalition présidentielle da nga da nga daan kaas. mais tey nekkatoo fa nan nga koy commenter. gis nga ba tey jii loolu laay kaas xam nga hmm. lu tax. Hmm. n'oublions pas que Macky Sall est le président de tous les Sénégalais. Hmm. même bu ma nekkul ci benn bokk yaakaar Macky Sall moo président. n'est-ce pas tey président Macky Sall phrase bu mu bind acte bu mu teg parole bu mu yëkkati daf koy def ci turu Sénégal donc bu yàqoo rek ci turu Sénégal de yàqu je veux que les gens ñu réfléchir ci loolu ñun ah? on n'est pas dans cette dynamique di wax mhm. yi génne nañ bennoo lii baaxul non mhm. man damay nekk bennoo di kaas be nangu wuñ ma jox dara mhm. lu ma mérité dañuy préféré jox ko keneen parce que nee nañ Marème kaaskat la xam nga booy ànd ak ay nit te ñoom njub neexu leen seen ànd dafay jafe man damay bëgg lépp jub man je suis perfectionniste damay bëgg lépp jub lépp tegu ci yoon malheureusement mënta nekk. Hmm. xam nga lii commencé wul tey. Hmm. dafa dem ba daanu nit ñi di regretter di wax hmm. mais président recevoir na fi ku sàcc ay. parrainage ak ay parrainage <laughs> jàmbu ñëw andi ko mu mu mu accueillir ko présidence ba pare yëkkati mbuusu xaalis tegal ko ah, xam nga ces choses là ça va pas pour l'intérêt de ce pays là ces choses là demul pour le développement du Sénégal donc yu mel noonu bu fekkee ne yow ku jub nga. Mhm. ku jàpp ni war nga liggéeyal sa réew te ñaar dërëm doo ko ca lekk. Mhm. parce que euh, mës naa ko wax. Mhm. et je continue à le dire à chaque fois damay défier quelque responsable que ce soit de bennoo bu taxaw ne keroog bi ma liiwee def lii Marème dama ko jox lii daf maa wax lii daf jamais mësul am. man je suis ci li may def. et je prends toutes les responsabilités de m'engager là où je sens. l'espoir que bu ma indee ak kii jàppale ko génne samay idée sama morom génne ay idée wam mhm. Sénégal dina xaw a soppi doxalin mhm. gaal gi dinañ ko xaw a réajuster euh, te muy ci dynamique boobu laa nekk surtout contexte bi nga xam ne ni dañuy ne ni dañuy régulariser les réseaux sociaux nga gis président Macky Sall promouvoir ki nga xam ne ni daanaka mooy reenu saagakat ci réseaux sociaux yi c'est quand même contradictoire xam nga euh, je dis que c'est une très drôle de manière mhm. de, de vouloir contenir les réseaux sociaux parce que mhm. du noonu mhm. déjà pour commencer tey peut-être Californie saa gën a way nangam Californie on peut le prendre comme un frustré boo xamante ni il a beaucoup participé wax dëgg yàlla ci ci essoru Benno peut-être à un moment donné il a un peu perdu les pédales et ça arrive certainement à tout le monde mais quand même jël ay xale yoo xamante nii mosuñu bokk ci sa politique mosuñu apporter quelque chose au développement de ce pays ñu xëy taxaw di saaga le président Macky Sall mm. ay saaga yu ñaaw di ko xas ay xas yu ñaaw mm. pas la personne mais l'institution mm. pas la personne mais l'institution tey ku saaga Macky Sall Sénégal nga saaga mm-hmm. ku xas Macky Sall Sénégal nga xas. donc bu président demee ba ku ko xas saaga ko mu oola neexal la tegal la keesu million ci say loxo. saagakat yi dafay bari finalement yeneen kii amuñu benn raison pour xas ko ba saaga ko mais mm. tout le temps ils le font parce mm. qu'ils comprennent mm. nan la ñu koy mën jaar jaare léegi ñun ñi nga xam ne mënuñ ko saaga mënuñ ko xas parce que au delà de la politique au delà de voilà de la structure qu'il représente au-delà de l'institution qu'il représente c'est un grand frère. Ah, en tout cas euh, espéron que euh, communication présidentielle dinañ jot ci message bi par photo yooyu noonu du loo xam te day honorer république du loo xam te day honorer président de la république ndaxte image yooyu noonu ça frustre. day créer frustration te day créer comme ni ko Marème waxee léegi ñoo xam te ni ay saagakat yu bees yoo xam te parce que business lañ nekk on a vu la femme génn am na ministre bu ko jox 5 millions donc. Euh, loolu parenthèse la woon rek. Mhm. Euh, ñu ñëw si politique. ndax tey politicienne lañu invité. alors le président Macky Sall écarté rek ñëpp dem lan ngeen di reproche e, exactement Amadou Ba lu xew. man de personnellement. Mhm. suñu bàyyi woon. am ah, d'ailleurs man sama ànd ak Macky Sall nee naa leen bëgg ko jàppale moom mu dugal ci politique fi xeex bi tare ñëpp ne teg kenn ñemewut a wax man rek maa jóg jëngu di wax lu ma xalaat pour won président Abdoulaye Wade ne ko fa Macky est un fils de Fatick c'est notre frère frère te duñu ko mës a bàyyi nit di ko piétiner mbaa mu di ko toroxal et quand je dis que j'ai été la seule c'est parce que j'ai été la seule dans Fatick amul keneen ku ma fekk si ci niveau boobu donc suñu demee ba tey Mariam mi nga xam ne moo doon xeexal président nekk ci Macky Sall Mariam boobu la ñu xeex isolé ko piétiné ko lu war a jóg di def genre revanche sociale boo xamante ne nii lu Mariam mérité sax dañuy préféré jox ko Penda ma ca Louga parce que mi ngi leen di raayal seen gannaaw jox ko Binta ma ca Kolda parce que mi ngi leen di raayal seen gannaaw loolu ça n'aide pas le Sénégal et ça n'aide pas le président Macky Sall bi ci des nag mooy man personnellement muñ naa ko bi Macky Sall jeexal na je ne dois absolument rien au président Macky Sall c'est il me doit beaucoup te baal naa ko lépp parce que ma woon ak moom pour intérêt mais nag man xamuma Amadou Ba xamuma lu Amadou Ba teg personnellement ci fu mu bëgg a jëme Sénégal su suñu bàyyi woon Amadou Ba peut-être choix bi ñu doon def ci candidat yi ku nekk apporter sa vision. Mhm. ci fi nga bëgg a jëmee ci Sénégal. Mhm. suñu xoolee ku nekk sa programme mën nañu wax ne ah c'est le meilleur profil. Mhm. mais jël la pour jël la parce que yow yaay premier ministre jël la pour jël la parce que nangam buñ la utiliser mën nga contraindre diw mën nga contrecarrer diw ñu nekk ñu dans cette logique là mais est-ce que président Macky Sall bi nga xam nga xam ne nii ba nga koy xam nekkuloon sax président nga xam jikkoom xam léppam tey jii nii choix am doyu la wala yow da nga jàpp ne dafa jum. Macky bi nga xamoon nekkatul même Macky actuellement. Eh, déedéet. Ah, dafa changé déedéet lu baree baree baree ah. bari sax. xam nga xam nga xam nga xam nga Macky bi ma xamoon. Mhm. mooy Macky bi nga mhm. xamante ne nii. Mhm. dafa naan ci ci ci ci ndoxu ministre bi. Macky mi nga xam ne nii bu bañ jotee dafay taxaw ne damay bañ nit ñi ñëw ne ko kaay ñu bañ le la. Macky bi ma xamoon mooy bu nit defee dara te jaaduwul il tape sur la table ne lii jaaduwul. mais Macky bi nga xam ne tey bu nit defee luñ ko war a tapee mu mu neexal la. suñu defee luñ ko war a neexalee mu tappale la mbaa mu isolé la eh, ça c'est pas le Macky pour qui je me suis sacrifié je suis désolé de lan lan lan lan dans ce cas lan moo tax kon nga topp euh, Mame jaaw Diao yan qualité nga gis si moom yoo xam ne gisoo ko ci euh, kontaan na ma waaw waaw question boobu neex na ma <laughs> lool lan nga gis si Mame Boye Diao yoo gisoo gisoo ko ci Amadou Ba principe mhm. loolu moom même mes ennemis mhm. nañ ma ko mhm. euh, dafa am loo xamante ne dama ko gis ci Mame mooy nit koo xam ne la nii hmm. ku ko côtoyé boo taggul générosité di nga tagg sociabilité am hmm. mbaa nga tagg hmm. courage bi mu am pour taxaw ne Sénégal am naa yaakaar ni mën naa koo defar tu sais que tey ñu bëri ñu ngi ci biir bennoo ñu bëri je te dis ñu bëri ay responsable de haut niveau lii Mame Boye jaawa def tey ñoom ñëpp mi ngi ci seen xol ak seen xel mais ils n'ont pas le courage de Mame Boye Diao amuñu courage bi pays dëkk bu mel ni Sénégal toll fii mu toll pour nga joyanti ko il faut nga am fit mhm. léegi yow boo amul fit ba pare sa xel dañ koy yokk mhm. man duma la topp mhm. Mame Boye Diao am na xel loolu kenn dis ko amul wérante jii boo doon comparé Mame Boye Diao Amadou Ba comparaison comparaison ni lan ngay wax ni loo xam ne yow gis nga ko ci Amadou Ba gisoo ko si Mame Boye Diao wala gis nga ko si Mame Boye gisoo ko Amadou lan la exactement ah, xam nga loolu laay wax ma ne man Mame Boye Amadou Ba xamuma ko xamoo ko ah? je l'ai pas côtoyé Mame Boye Diao 2008 la ñu xamante 2007 2008. Mhm. donc du tey. on a été ensemble dans un club des chefs de service de Fatick. Mhm. man en tant que correspondante régionale des RFM. Mhm. maa ko tijji Fatick. moom en tant que chef de service des services ko donc maak moom du tey. du tey. kon fréquenté nga ko xam nga fréquenté naa ko je connais la la la personne. Amadou Ba mënuma wax ci moom dara. be muy benn. xam nga Mame Boye Diao fi ma ko fréquenté ba xam tuuti ci moom. foofu on était des hommes libre yoo xam ne kenn mm. amul intérêt ci sa morom mm. te kenn raxuñu kenn doxul suñu diggante mm-hmm. du Ba tey mm-hmm. mënuma ko xam mm-hmm. parce que da ngay ne obscène ko mais après il y a un lobby qui se forme autour de lui il est inaccessible quoi quand ce lobby là se forme autour de lui comme ni ñu def président Macky Sall Sall d'ailleurs bañ tollu fii tey ñun dañu dem ak Macky Sall ci ngor rek mënoon nañu depuis le début génn taxaw wax ay wax bien kenn duñu téye te te man dama bokk ci nit ñi nga xam ne fii ci dëkk bii man lu ma lu ma point bu ma yëkkati mën naa ci argumenté ma ñëpp d'accord ma avancé <laughs> parce que lu ma dugg ci lu ma xamul c'est naturel chez moi leer na li nga wax ci Amadou Ba koo xamul mënoo koo kii ma ko mënu et puis et puis daf ñu tegalul même bu dul personnellement daf ñu tegalul ñun au Sénégal mhm. benn xam ne mën nañ ci wekku ne ça c'est le programme de Macky de de Amadou Ba mhm. mm. président daf ñu jox benn programme de continuité boo xam ne Amadou Ba moo ko war a déroulé mhm. léegi bu duggee ba ci biir ban koo déroulé luy xew dañ koy dóor dañ koy dàq dañ koy génne. mais mais dans ce cas Marème tey jii nii yow boo jàkkaarloon benn sénégalais lambda nar koo convaincre par exemple tey nga nar maa convaincre pour ma joindre Mame Boye lan nga ma wax exactement loo xam ni dina tax ma bàyyi li ma nekk rejoindre Mame Boye par exemple. pourtant pourtant tontu naa la ko sànq dama ne la. Mhm. Mame Boye am na ñoom li ñu amul. Mhm. mooy le courage de dire man damay dem parce que yaakaar naa ni mën naa doxal Sénégal. Mhm. muy benn ñaareel ba mooy ku ko xam xam ko xam nga xam nga euh, leader générosité ak sociabilité pratiquement bu teggee ko ci yow même bu gaañee amul sañ-sañu wax la dara dañ lay jéppi hmm. est que moom dina déglu ay collaborateurs yow yow yaa ngi woon ci suñu événement démb <laughs> yow yaa ngi woon ci suñu événement démb hmm. ku dem bay àbb Mariam micro pour mën a mën a mën a téye micro bi hmm. pour sa soxna wax je pense que humilité weesuwu ko te du loolu kese damay joxe noonu benn exemple yow gis nga maam booy jaaw foog seen dafay reetaan mm. de tout le temps te reetaan <laughs> boobu moo nekk ci moom parce qu'il est humble man mënu ma ànd ak ku diis mm-hmm. ndax man dama dama bëri jël ci ti mm-hmm. man man pour ma ànd ak yow mm-hmm. il faut nga humble ba nga xamante nii ku ñëw ci yow di nga xam lim lay apporter nga yóbbul ko ko am Amadou Ba je peux lui rien lui apporter mais eh, euh, eh, eh. mais Marème beneen bi mooy est que Mame booy Diao am na chance jàll parce que xool nañ gars ñu ngi koy këdd gauche di ko këdd droite d'ailleurs li xew Kolda ak Dourabal bi nga xam ne léegi armé nañ ko jox nañ ko ay moyens pour mu récupérer seeni seeni seeni i seen i di gaañ de xam nga xam nga <laughs> xam nga Sadio jeu politique baax na. Uh-huh. mais li bon mooy les sales jeux politiques. Uh-huh. xam nga boo bëggee wax démocratie laa nekk. mais ku àndut ak man dama lay noot foofu mm-hmm. démocratie jóge na fa mm-hmm. qu'on se dise la vérité mm-hmm. te je pense que bu fekkoon ku am pouvoir rek ku la neexul nga utiliser ko ci kawam kon yàlla suba su xëyee xët kenn ci ñun ndax ci def la ñu dëkk n'est-ce pas mais li tax yàlla xëtul kenn moo tax ku <laughs> yor pouvoir leen di kii quoi <laughs> non mais non mais c'est normal xam nga tey boo jëlee benn jeune comme Doura Baldé man j'aime quand les jeunes s'affirme di di di di doxal te xam naa ne jeune buy doxal la mais boo jëlee di ko yen lu yem ni LONASE way juste parce qu'il y a les moyens à pour contrer Mame Boye Diao loolu c'est une grande perte de temps te wallaahi xaalis bi muy jël foofu di ko dugal am na fu mu xej fii ci réew mi ci biir dëkk bi ci population yi c'est-à-dire mais est-ce que madame ce n'est pas la politique sénégalaise mooy doxee noonu parce que militants yi souvent il faut nga am moyen pour ñu mun laa topp te Doura gis nañ ko bañ ko falee léegi lu muy drainer si monde waaw monde mooy monde bi xaalis bi andi xam nga man maam booy joxaguma joxaguma cent franc mhm. te soxla naa ko nag parce que damay paas ay taxi di dem di ñëw joxaguma cent <laughs> franc te pourtant maa ngi def ak moom li ma war a def ak moom xam nga lu tax <laughs> même bu ma lekkul ci maam dërëm uh-huh. bu ma lekkul ci maam booy dërëm uh-huh. jàppal que Sénégal uh-huh. mën na lekk ci maam booy dërëm à travers la politique de mu bëgg a instaurer pour pour yëkkati Sénégal gis nga gaal gi weng nii il faut ñu joyanti ko il faut ñu ñu delloo si valeurs yi il faut nit ñi il faut ñu ñu jox leen jom bi ñu amoon il faut ñu jox leen fulla gi ñu amoon bëgg seen réew bi ñu amoon bëggante ak yërmande gi nekkoon ci sénégal sénégalais dafa disparaître mhm. ci ay jeux yoo xamante ne nii ñi am ñi am doole mhm. ñoo koy joué ba population yi mujju désarmé wu carrément toog di leen seetaan luñ def baax na. yàllaa ngi fi xam nga foofu. alors que y a les possibilités de faire changer les choses. justement loolu day légitimer sa beneen question bu ñuy wax ak seen affaire clé bi foo leen ci toll Adama yóbbu na clé bi. Ah. yóbbu parrainage yi yéen daal. Ah, Adama moom tribunal daal ngeen mujjee quoi. Adama moom yóbbu na clé bi yóbbu parrainage yi mais problème am mooy dafa nanguwul wuyu ji yoon. Eh. parce que depuis que ñu ko joxe joxe joxe sommation ba tey jii eh. Adama plateau bu mu dem na leen mosuma yor clé. xam nga yooyu moom dafay dem ba et ah bon dafa delluwaat gannaaw quoi. dafa dafa wax waxee. xanaa kon suivre actualité bi Adama ah fi mu nii. Adama ah, Adama ah, fi mu ne nii yàbbee ko gënal sax. daf ñu engagé te xëy na xamutoon suñu mhm. doolee mhm. loolu nag mooy nax ñu bari. Mame Boye Diao mhm. dañ koy encadrer de sorte que du bokk ci. kii ñuy compter diw ak diw ak diw ak Mame Boye Diao dañuy bëgg yàlla mooy joxe ndam te ñaan nañu yàlla mu jox ñu ko mais même bu ñu demee ba yàlla def ne moom dogalu ko woon ci ñun que ñun ñu nekk ci échiquier politique bi coalition boo xamante nii kuy wax ci ñun doo ca teg lu ñaaw te loolu mooy valeur yi nga xam ne moom la Mame Boye di incarné moom la ñuy imposer déjà mi ngi ci ñun parce que ku nekkul femme de valeur wala homme de valeur doo ànd ak Mame Boye Diao loolu moom man maa la ko garantir man boog du ma ànd ak ko amul valeur. Mhm. mais mais beneen question bi même même lancé bi ah parce que également dañu gis ni ni euh, Aliou fay d'ailleurs fi nga taxaw fii la taxaw ne ni collaborateur Matar Ba yëpp ñoo ci Mame Boye Diao. ñu bëri tey jii nii mel ni Fatick moom Mame Boye ko moom. yéen mere ngeen gars yi de ma seen boo waxee tur boobu. Mhm. damay damay exprimer waat sama fierté ci moom. Mhm. parce que sama rakk la dañoo bokk baay. mais. dafay neex jeune Fatick jeune Fatick taxaw ci échiquier politique Sénégal benn taxawaay boo xam ne kenn du am lam-laame bi te eh, je pense que tey coalition bi li ñu sant Massène Papa mu ngi ciy def bay def lu ci bokkul ñun au niveau de la coalition on a une satisfaction totale vis-à-vis de ces jeunes là Massène waaw euh, xam nga am na lu xew xaw ma ñoom seeni rapport ndax ak Matar Ba parce que Matar Ba 2014 bi ma ko communiqué lee ba mu jël mairie Fatick ci lañ gëj a ci lañ gëj a ci la fàtte ne man j'existe may sant yàlla bu la nit ñi di fàtte te bu la yàlla fàttewul mhm. Ba benn rapport bu ma ko mën a séddale dara te boo waxutoon turam sax du wax turam parce que la personne de Matar Ba ne m'intéresse pas Marème daa mel da ngay li Aliou Say waxoon Fatick responsable Benno tas nañ ku ku nekk ngi ku añaane sa dono sa déewin ñaaw mhm. ci benn euh, euh, réunion bu ñu organisé woon mhm. après nag ñu jël fa pacte ñoom ñëpp ne Marème moom nañ ko noyé bu mu feeñati parce que way Marème ay waxam mhm. li ma waxoon démb mooy déroulé nii tey waxuma ko woon pour réew waxuma ko woon pour bañ leen euh, mës naa wax ci benn télévision que man j'admire trop société bi nga xam ne mi mooy les alpulaar mhm. xam nga lu tax mhm. ñoom dañuy def fu kenn nekk mhm. dina fexee diri ay moromam ba ñu ñëw nekk fa nekkandoo fa ñoom di am seen teranga et c'est la vérité et tel n'est pas le cas fële ci Fatick siin siin yii nag moom siin siin yii nag moom buñ la diriwul nga am sa teranga sax booy am sa ay ailleurs ñi nga xool ni ñuy def ba teqatal la doo dem ce qui est malheureux c'est grave góor ak jigéen mag ak ndaw gis nga xeexante bi nekk ci Fatick sur le plan politique quoi. waaye du sax politique sur tous les domaines te benn esprit la boo xam ne. sàggane nañ ko di ko fowe ba chance bi ñu euh, yàlla ma yoon jox ñu président Macky Sall mi ngi jeex. sa veut dire que autrement dit euh, le président tey jii nii yéen. Euh, président Macky Sall gisu leen ci seen bopp quoi ñu pour ñu tëj ci ah, point boobu ñi ci gis ñi ci tabax ay étage mhm. ay immeuble mhm. ak yeneen ak yeneen mhm. di ci dawal ay huit huit ah wax dëgg yàlla ñoom gis nañ ci seen bopp donc mënuma wax gisu leen seen dama ne man am na samay moroom yoo xam ne gisuñu ci suñ bopp parce que ñu ngi jël taxi di yéeg ba tey jii donc ñun gisuñu dara changé wul si ñoom dara changé wul au contraire mm-hmm. dañu gën a wàcc fa ñu ne woon mm-hmm. mais na comme Fatick lañ ko doon defal te réew mi lañ ko doon defal on ne regrette absolument rien mm-hmm. mais ce qui est sûr mooy makki jeexal na moom la ñu gunge woon jeexal na rien ne nous lié à Macky à part cet esprit patriotique soxna <laughs> Marème <laughs> jeex na Marème euh, mbay Mbaye lañ dalal muy collaboratrice kii di Mambo Diaw coalition Diaw 2024. alors mhm. Soxna Marème ñëw ci parrainage démb gis nañ femme coalition Mambo jaaw def lu inédit maanaam. Mhm. na ba pare jël xaalis yu bëri ne président ñoo la ko jox. waaw foo leen jëlee alal jooju ak. loolu de <laughs> loolu de loolu de la def. xam nga ah. maa ngi la koy wax. nee ah. naa la ñëwuma ci maam booy ndax xaalis te joxaguma dara. Hmm. yéen daal yéen a yéen a ko financé quoi sama morom aussi joxagu ko dara. Mhm. xam nga comme moom joxaguñu dara donc hmm. moom. mais engagement boobu fan la juddoo parce que Mame Boye mooy dooraa nekk opposition mu entre guillemets amagul yenn base yu dëgër yi amagul bon sur le plan national peut-être am ngeen maillage am ngeen pas mais engagement boobu fan la jóge ba ngeen mën a jël cinq millions ne Mame Boye jigéen ñi ñoo la ko jox jigéenu Dakar d'ailleurs. pourtant waaw jigéenu dakaar mhm. te mobilisation bi nga gis démb xam nga ne du mobilisation bu rëy dañ ko bëggoon def lu officiel. Mhm. jël ci commune bu nekk mu am. les têtes de pont ñëw représenté jigéen ñi ñu mm-hmm. bañ ko def Mumbaay mu rëy parce que bés bu ñu bëggee def Mumbaay dañ koy def rek Mumbaay jeex mm-hmm. mënuma ko tuddee Mumbaay mais damay wax mobilisation mais comme mm-hmm. olof Mumbaay la koy wax nekkuñ ci tamayeeg sabar yeeg ronkong ton ñun on a on a d'autres projet pour ce pays là te foofu la ñu jëm ak moom cet engagement là c'est juste li ma la waxoon tontu naa la ko nee na la Mame dafa am benn cadre boo xamante ne nii moo ko wër c'est des femmes et des hommes de valeur te fi mu ñu gañee mooy fi mu ootee pour ñu delloo si valeurs yi mhm. fi mu ñu ootee pour ñu delloo si njub ak dëgg fi mu ñu ootee pour ñu ñëw delloo si yoon ak espoir ci xale yi mhm. foofu la ñu foofu la ñu oowee te foofu la ñu amee mhm. donc les sommes de cinq millions et autres du dara ci ñun du dara ci ñun suñu engagement pour ce pays ci moo ko ëpp doole est-ce que nekkul Mame Boye da doon liggéey avant parce que en ah, si laps de temps là munoo liggéey loolu Mame Boye ba mu nekkoon si nguur gi am na lu mu doon munu si suuf Ah, man de mën naa la wax lenn. Eh, parce que tamit démb lu ñu gis. c'est extraordinaire yow yow tu me connais. et je puis te jurer. Hmm? que Mame Boye Diao musul préalable. Hmm? ni ma marème politique nangam ak nangam ak nangam jamais. kañ nga wax ak moom ci loolu noonu pour la première fois. gis nga keroog bi ma génnee ci ci ci ci ci ci photo ak moom. Hmm? je pense que ça fait à peine vingt jours. mooy bi nga publier sa page. à peine vingt jours. ci laa dem waxtaan ak moom. ne ko je te soutiens. gis nga ba ma ko waxee je te signé daf ma ne je te veux communication man quoi dinaa ñëw mu ne ma tout de suite. en tout cas communication bi Pam Déri ngi fa ah. waaw Fallou ngi fa. waaw. Euh, ak yow ndongo ngi fa kii notre coordonnateur. yeneen ak yeneen ak yeneen Zeyna mi ngi fa. ak ñeneen ak ñeneen donc <laughs> comme ni ma waxoon rek. il a su. utiliser les bon valeurs ci fu nekk ak ci ki fa war a nekk. ok les objectifs de parrainage foo leen toll exactement quoi est-ce que am ngeen. nombre de parce que dugg si kër yi ñu leen di dàq de. xam nga non loolu ah, moom bañ nañ ko ba fuñ ñu dugg. Hmm. dañuy accueillir ndax ree gi parce que ñun ree la ñu jiital ci suñu lépp cet espoir là qui renaît chez les Sénégalais bu ñu gisee Mame Boye Diao ak hmm. équipe am ñun foofu la ñuy doxee hmm. parrainage moom waxatuñu ko. am ngeen am ngeen nombre bu yàgg na yàgg na comme jigéen ñi dañuy ñëw mhm. ñeneen ak ñeneen les mouvements yi ñuy fekk si mhm. di ñu andil seen i parrainage ñeme wuñ ko bañ a jël ah. mhm. et puis c'est normal parce que ñu ngi ñuy andil seen i yéene mais ñun on a fait de sorte que ñun ñu teel a lijjanti suñuy tege teganee mhm. parce que bëgguñu en aucun cas mhm. gars yi jaar ci poox ndoll mhm. dugalal ñu ay doublure mbaa ñu konteel ñu ay ñaar yu manqué ak ñett ba ut luñ ñu def mais ci région yëpp ak département Sénégal yëpp am ngeen fa dans chaque région du Sénégal et dans la diaspora dañu am des délégués régionaux yoo xamante ne nii le travail en en en en ñoom ñoo koy def ba mu sotti ñu andi ñu ko anam mu ñu doxal kon daal instant bi yéen lépp yem a maay quoi. macha allah ndam li rek moo ci des. Ah, caution bi nag. daa mel ni famille rek a joxe de ah. déedéet te li ci neex mooy ah, ñun dañu andi. 5 millions yéen rek andeegum de yéen rek andeegum madame ñëw andi 3 millions. muy ñu ñoom ah, neex na de yéen daal kon yéen da ngeen bëgg a financer loolu la ñu gëm ñun mhm. dañu wax ne suñu Sénégal bi ñu bëgg. Mhm. le Sénégal à venir. Mhm. Mame Boye Diao lañ ci yaakaar mais ñun ñoo ko war a pousse pour mu tàkk c'est clair c'est clair en tout cas loolu initiative bu rafet la ndax politique mhm. waratul nekk politique yoo xamante ni benn nit mooy décider jël ay kaar génne xaalis sol ci ay militant ak militante yóbbu leen pare mhm. fay leen mhm. bu paree kooku rek mooy décider ah waaw gis nañ fi donc comme affaire yaa ngi évoluer sant yàlla euh, Marème dañu ñëw si programme léegi waaw Mame Boye Diao génnee na benn livre programme boo xam te ni euh, quatre axes je pense la ko kiiwee axes yu am solo yoo xam ni Euh, def nañ ci communication bu am solo ñoom Ndongo ñoom Pam ak yow ak ñi ci des yëpp def ngeen ci communication. Mhm. mais tey jii nii euh, sur plateau Levi TV. Mhm. tey ba ñu doon tënkal les axes phares yoo xam te ni tey jii loolu mooy seen offre yoo xam ni euh, moom ngeen bëgg a proposer yi lan lay doon exactement. waaw xam nga président Mame Boye Diao. Mhm. wax naa la ko sànq boo gisee ñu gën ànd ak moom gën ko soutenir mm-hmm. mooy axe yi mu dugg dafa doon axe yu ñu ñor mm-hmm. dafa doon axe yu ñor képp koo xamante ni Sénégal ñor na la parce que tey bu mam bu ñu jaaw wee di wax mm-hmm. les valeurs les repères nañu delloo si dëkk bi ci cër ba mu amoon ñu doxale ko dëkk bi mooy lu muy woy refondation jeex na ñu ñëwaat ne perte bi nga xamante ne nii xale yi am nañ ko ci perte de repère ba tax fu ñu leen ne foofaa gën Sénégal ñu daw fa jëm nañu fexe delloo siwaat Sénégal yi xale yi yaakaar bi ñu amoon ci mim réew ba xam ne mën nañu toog fii jëriñu ñu ne waaw mu ne jigéen ñi nag dëgg la ñu ngi góogóolu ci ñoom mais góogóolu ci jigéen mu tëdd këram chaque jour nga yëkkati yaar yu nekk quatre-vingt ba trente mille jox ko jàppale wu jigéen jigéen bu nga koy jàppale da koy fexe woon yoon mu xam ne bu ma defee lii am lii mu dugg ci di liggéey benn xaalis boo xamante ni c'est mérité maanaam euh, loolu ñuy tudde socialité au fait politique la boo xamante ne nii koo dimbali jël carte d'identité boole ko ci sa group mm. on veut pas de sa mm. on veut libéraliser les choses dañu bëgg ubbil jigéen ñi bunt yi ba nga xam ne ku nekk fu sa passion nekk di nga am sañ-sañu dem fa set la nga fa mën def nga def ko di doxal sa bopp di doxal sa sa sa sa famille di doxal sa réew ba pare di doxal sa poche ci loolu la ñu nekk euh, également wax na ci programme bi wax na ci domaine justice bi nga xam ne nii daanaka nguuru Macky ñu bëri dañuy déplorer fonctionnement justice ak li demee mam booy am na lu mu ci wax tambi justice justice xam nga fu jàmm newul mhm. dara mënu faa yendu boo jëlee sa justice parce que yow yaay yaay doxal nga jël ko def ko ci sa poche yow li la neex la ñu war a wax à temps li la naqari kenn waru koo dégg je pense que réew moomu yaa ngi koy suuxal même bu fekkee c'est de manière involontaire réew boo koy doxal da ngay bàyyi ki war a doxal yoon doxal yoon kiy jàngale dem classe. Mm-hmm. journaliste bi dugg rédaction kiy mm-hmm. jaay toog ci ci ci ci kantinam. Mm-hmm. loolu mooy doxal réew mais boo bëggee kiy jaay ci kantinam nga jël ko yóbbu ko ci rédaction jël journaliste bi dugal ko dugal ko dugal ko dugal ko biir justice day jaxasoo te depuis 2012. Mmh. je dis bien depuis à chaque fois même dans Benno on me disait yow moom da kaas rek da ngay critiquer rek man maa noonu groupe bu ma nekk lu ma fa neexul ma wax ko boo gisul dëgg da naan. merci bu ma gisul dëgg dama naan du dëgg. et je pense que depuis le cas de Karim Wade ba ma ci tey wàcc sur le cas de Sonko. et même d' ailleurs ce qu'il prévoyait de faire avec Aly Ngouille xam nga ne yooyu yooyu c' est des bases yooyu kenn mënu ko tuddee ay justice parce que justice boo koy def dangay am le fond et la forme du dossier nga dem ba mu sës. Mhm. loo ci am ñu xam ne lii la justice tracé ñu dem. mais boo bëggee dugal nit justice bokkut ak man. Mhm. fii ñaata yëpp gis nañ fi ñu ñu jël ay billets kii ko. Mhm. gis nañ fi ay nit ñoo xamante ne dañuy faagaagal nit fan lay mujj. fen lu tax mujjul fen parce que fa ñu bokk la. fa ñu bokk la quoi <laughs> mooy doom doom lakk doom quoi. du demee noonu. Mhm. parce que justice Sénégal dafa soxla indépendance. Mhm. justice Sénégal ñi fa nekk. Mhm. dañu jàng diplôme ya ñu am dañu ko mérité. place yi ñu toog mooy seen place. maintenant boo leen bëggee contraindre yow li la neex moom la ñuy def. nga seet ki la ko nangul nga teg ko fa. te fekk ne ku ko gën a mérité sax a ngi tegee je pense que loolu. du réew mu war a dox. et ça loolu la ñu bëgg a dindi ci mim réew. ok euh, yaa ko wax léegi Ousmane Sonko Mame Boye Diao fu mu toog day assumer. ak fierté relation bi mu am ak Ousmane Sonko est-ce que du handicap si moom parce que jamono ji gis nañ ni mu demee est-ce que du doon loo xam da koy handicapé wala loo xam te ah. day tax ñu ñu fexeel ko. wax naa la fii ma taxaw nii ne la Macky Sall c'est mon grand frère. Mhm. et c'est mhm. loolu laa la wax fii. parce que moom daf koy réclamer. Mhm. n'est-ce pas ma taxaw fii wax ko Mame Boye Diao Ousmane Sonko c'est son ami mu taxaw fii wax ko ay nit dañuy bokk ndey ak baay te duñu bokk gis-gis ci politique du ñu mm. bokk même parti. Mm. et chaque jour bu ñu xëyee seen yaay la ñuy woowee yaay seen papa ñu di ko woowee papa. Mm. pourquoi rayante wuñu <laughs> léegi lu tax ñu wax ne way Mame Boye Diao Macky et puis d'ailleurs je vais répondre à ça parce que souvent damay dégg gars yi di ko wax. Mame Boye Diao Macky ko def li mu doon Mame Boye Diao Macky ko ils n'ont rien compris Mame Boye Diao est un cadre de l'administration. bi Macky di nekk président fekk na Mame Boye Diao nekk ci liggéeyam. Mm-hmm. neema benn la neema benn muy benn mhm. ñaareel ba mooy Macky moo soxla Mame Boye Diao xam ne am na lu mu ko mën a apporter ci domaine bi mu yor mu jël ko teg ko fa mu nekk donc Mame Boye Diao a travaillé pour son pays ci o bi ko Macky o mhm. bu may dégg ñu naan moo ko jox lii moo ko def nii man je rejette ça mais mais avouez quand même Macky moo ko promouvoir parce que mënoon na koo bàyyi foofu jël keneen mais su woon jël keneen it su ko bàyyi woon kooka day mérité loola mm-hmm. parce que bi mu koy jël pour ñu ànd defar Sénégal la mm-hmm. donc bu Macky jeexalee maam booy ne Macky jeexal na man damay ñëw teg samay kii parce que am naa ambition pour Sénégal mais ça c'est son droit le plus légitime mm-hmm. donc ku ko ci xas mbaa nga saaga ko c'est parce que juste y a des stratégies politiques yu ñuy utiliser te politique dafa am limite. du yàqante du saagawante du waxante lu ñaaw du uñëwante sutura c'est pas ça la politique. moi j'aime pas la politique de cette manière. leer na euh, dañu ñëw question d'actualité également parce que émission bi daanaka wax nañ ci Mamboy Dia wax nañ ci Fatick wax nañ ci ponk ñoo xam te en tout cas war nañ koo wax mais am na loo xam te actuellement sa fait. l'actualité mooy question Barça wala Barça wala Barça wala hmm. Nicaragua je sais pas ko mën a woowee. Hmm. mu doon loo xam te ni ah, ñu ci bëri dañu jàpp ni régime bi dañoo lajj ci politique de jeunesse. alors yow loolu ban jàngat nga ci def. Euh, Sadio. yow ak man. ñoo bokk nekk ci même réseau di ko doxal. le réseau africain. pour une solution à l'apatridie. je pense que gis nga cette question de la l'apatridie là. dafa bokk tey ci cause yi nga xamante ni moo war a jeunes yu bari di dem. parce que yow sa réew. amoo extrait amoo carte d'identité mënoo ubbi ubbi ubbi ubbi ubbi. Euh, euh, compte bancaire mënoo liggéey de manière officielle mënoo jënd dara ci ay biens parce que da ngay soxla ay kayit hmm. yow déjà loolu amoo ko nga gis yoon boo xam ne mën nga dem ba daan fee sa doole san kayit hmm. booy dem doo hésité d'ailleurs nga wax ñu tuuti liggéey boobu foo leen muy ralka nga xam ne raza bi raza nga xam ne yéen ci bi moom temps yi xam naa waa raza yëpp dinañ ma baal parce que temps yi moom dama nekk ci mam bo daaw parce que dama soxla réew mi je am solo ni war ngeen cee gën liggéey gën cee communiquer alors lan mooy exactement raza euh, lan mooy objectif nga xam nga le raza c'est le réseau africain pour une solution à mhm. ko seq bi jox ma mhm. jël nag donc yéen a ci onze pays actuellement quoi ñu ngi ci onze pays africains ma ay doomi Sénégal yu mel ni yow ak keneen ak keneen ñu ma wóolu ci seen ci seen compétence ñu dugg ci liggéey bi di jàppale nit ñi nga xam ne nii amuñ kayit di wax ak ñi ñu war a waxal gis nga tey euh, réew mi moo toll foo xam ne gis nga cette politique sociale la cette politique juridico xaw ma nu ma ko mën a tudde la boobu nga xam ne moom la ñu war a doxal gars yi wu leen xam nga ñoom lu leen intéressé bu ma bu ma bu diw mii may raay moo mérito am lii diw may ma xamul waruma ko jox lii alors que no chaque sénégalais bu nekk fii ci réew mii dafa compter pour réewam parce que bu ñuy compter nit ñi borom charrette ba sax dafa bokk ci population Sénégal kii gas force dafa bokk ci population Sénégal cadre administratif ba dafa bokk ci population Sénégal mm, donc euh, ku ci nekk da nga am cër boo war a am mm-hmm. ku ci nekk da nga am wàll boo war a am bu mm-hmm. buñ la ko xañee rek ñu ngi lay tooñ ok euh, tey yi bu ñu doon xayma ñaata sénégalais nga jàpp ni ñooy dund condition yooyu noonu nga xam ne dañuy exister entre guillemets ay fantôme lañ parce que ku amul kayit existé woo merci xam nga boo gisee le compte le décompte est difficile mm-hmm. mooy lu demee noonu tey am na sénégalais yoo xam ne ñu ngi ci biir réew mi ñoom jàppee nañu seen bopp ay sénégalais. te duñ ay sénégalais duñ dara fekk na. su ma koy wax damay reetaan parce que ñoom hmm. kenn moo leen boole ci Sénégal ndax existé wuñu ci benn registre mbaa benn ficier boo xam ne même bu dee sa papa sénégalais sa yaay sénégalais yow waaw euh. xam nga loolu bu ñu koy def tey pour détail il faut mu am benn émission entière uniquement pour ça parce que yow xam nga ne l'apatridie c'est un boo xamante ni hmm, c'est mooy base lépp gis nga problème yi nga gis ni tey muy am ci niveau social bi hmm. lépp ci affaire u affaire u affaire u apatridie la hmm. jóge affaire u existence ah. donc loolu moom damay préférer ñu tënk ko dencal ko benn émission ndax li ma ci bëgg a bari ñëw dinañ jël émission spéciale euh, parce que question boobu question bu importante la boo xam te ni ça mérite qu'on en parle ñu bëri ñoo ngi dund Sénégal yaakaar ni ay sénégalais alors que existé wuñu sax mhm. parce que tey jii nii même boo boo génnee àddina pour ñu suul la il faut ñu am certificat de décès ji demee noonu boo feebaree boo demee hôpital pour ñu mun laa jël en charge il faut ñu am kayit yoo xam ne booy liggéey bu ñu lay embauché foog maanaam àdduna nit existence am du début à la fin lépp il faut nga am loo xamante ni mooy firnde ni que existé nga donc mu doon loo ponk boo xamante ni lu am solo la yaa ngi ciy mhm. liggéey mhm. ñu la ci accompagner mhm. ak ñeneen ñi nekk ci sous région bi yëpp Marème euh, je pense qu'on est arrivé au terme de l'émission euh, ban kay ponk nga yaakaar ni waroon nañ cee waxtaan te waxuñu ci instant bi boo ñu doon laale sa dernier mot waaw man day je pense que wax nañu ci ponk yëpp mais li ma ci gën a gën a gën a yitteel rek mooy sénégalais mhm. nañu xam ne Mame Boye Diao mhm. dafa andi benn programme mhm. boo xamante ne nii dañu bëgg a jubbanti Sénégal ñun waxuñu kenn bu ñu toogee dinañ la may million waxuñu kenn bu ñu toogee dinañ la may oto ñun dañu ne bu ñu toogee dinañ fexe jigéen ñi mënal seen bopp seen liggéey amal ko seen bopp di liggéey di def ci seen bopp ak seeni famille mais dañu ne aussi ñun bu ñu toogee ci kàttanu yàlla ak mbaaxam dinañ fexe ba bëggante bi nekkoon ci sénégalais yi mu delloosi worma bi nekkoon ci diggante sénégalais yi suturante bi joxante cër bi ñu delloosi ko parce que loolu bu amul rek je pense que dëkk bi kenn dootu ko mën a doxal parce que dëkk bi Sénégal ko ak yeneen dëkk yi fii dëkk Maodo la ak bàmba ak Ibrahim fii moom jàmm rek moo fiy xew ak joxante cër faw loolu ñu dox ci peut-être nag di profité di la wax ne tey moom góorgóorlu naa bi def ak émission parce que yow moom sama <laughs> lépp nga mu të mais tey dafa nekk sama anniversaire u grande sœur ah macha allah mu décédé euh, daaw ah, ci ci ci ci jour mu nekk journée boo xamante ne c'est pas facile pour moi du mm, tout mm, damay mm. góorgóorlu pour mën a tenir mais je ne suis même pas ci ci ci ci sama assiette donc di dellu di ko ñaanal di wax képp ku ma xam rek bépp sénégalais nag ma ñaanal sama mag ji parce qu'elle était tout pour moi sunu sœur boobu ñu koy ñaanal sunu borom yërëm ko xare ko àjjana fi mu tëdd yàlla na ko gënal fi mu jógee ndax xam nañ seen relation yéen ñaar mm-hmm. également ñu fàttali ne mm-hmm. que soxna Marème Mbaye elle fait partie des anciennes de l'évidence Mm-hmm. ndaxte moom mun naa ne moo sànci kër gi moo bë bëz. waaw waaw ah, mën na yow li la jig rek <laughs> non man daa Pape Samba. <laughs> li ma ci jig ci waaw man damay bañ ah, ñu Pape <laughs> Samba Sène c'est un confrère. Uh-huh. c'est un frère et c'est un oncle. Mm-hmm. ci ñun fi ñu dëkk ci Kahone. Mm-hmm. c'est mon oncle à partir de Kahone. c'est un frère par relation. mais aussi c'est mon confrère dans le métier. kon kooku c'est un ami. boo xamante ne nii li ñu seq dafa bari. non yéen ñaar yaa ngi ngeen xam naa ci dara en tout cas ñu lay remercier bu baax di la ñaanal sunu borom sàmm la. amiin yaa rabbi liggéey bi ngeen sumb yàlla na leen ci yàlla may ndam amin amin amin yaa donc hmm? mbokk internet yi lii lañ leen andiloon ci Levi TV ak soxna Marème Mbaye nga xam ne coalition Benno Bokk Yaakaar la nekkoon mais tey mooy ci coalition Diao 2024 ñuy def liggéey bu mucc ay donc di leen jox dig daje ba beneen numéro incha allah jërë ngeen jëf